soxna Mariamu Mbàkke soxna Mariamu Mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1908 ci dëkk bii maamam nekkoon nag di Ceyeen Jolof ci dëkk boobu nag di Ceyeen Jolof nag la feeñe jamono nag ci atum 1908 muy doomu soxna Aminta Lo ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moom bi mu feeñee jamono nag ci atum 1908 waajuróom nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke waajuróom nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag la ko yëgaloon Seexul Xadiim itam nag sàkku ci doomam ji mu fob nag sëtam bii tudde ko doomam nag soxna Mariamu Kunta mu bokk ak Cheikh Mamadul Mouhamadoul Fadal Mbàkke nag waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen soxna Mariama Kunta mii nag mu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbàkke nag fayee doomam jii nag mu séq soxna Aminta Lo soxna Mariama Mbàkke nag am na ñu mu bokkal mu Mouhamadoul Moustapha Mbàkke nag ak soxna Aminta Lo ñu mën cee ràññee nag Sëriñ Mbàkke Madina ibnu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbàkke ibnu soxna Aminta Lo soxna Daba Mbàkke bintu soxna Aminta Lo bintu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbàkke Sëriñ Mbàkke Madina nag ak soxna Daba nag ay seex lañ ak moom nag soxna Mariama Mbàkke bintu soxna Aminta Lo bintu Mouhamadul Moustapha Mbàkke ñaar nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen ak moom nag muy ñett ngir xamale leen nag njaboot gii mu bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndawam ji nag di soxna Daba Mbàkke guddul nag aw fan ab seex la woon nag ak sëriñ Mbàkke Madina ci ak tuut tànkam itam nag la génnee àdduna doomu ndawam ji nag di sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Mammoor Jaara nag magi mag nag lañ ko tudde moo nekkoon nag itam nag ñaareelu xalifa Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbàkke ci li ko dale nag ci atum 1978 ba ci 1985 nekk jàkkay daarul xuddoos itam nag moo ko tabax soxna Mariamu Mbàkke bint soxna Aminata Lo bëtu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ca yoon jolof nag la feeñe jamono ca yoon jolof itam nag la ko Sëriñ Tuubaa nag wàccee ci ginnaawug waajuram mook soxna Maymunatu Mbàkke nag doomam muy soxna Maymunatu Mbàkke Kubra ñu wéy des ca yéen nag ñoom ñaar ak Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ak njaboot gi nga xam ne nii nag ñoom ñoo fa nekkoon ba nu fa Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag di bàyyikoo di dem nag njaaréem bi Seexul Xaddim nag di bàyyikoo ca yoon jolof nag di dem njaaréem sëtam bii nag di soxna Mariamu Mbàkke mi ngi woon nag ci délégation boobu waaye wax nañ ne nag bi mu nekkee ci yéen Jolof soxna si nag daa xawoon a weex tuuti ku ñuy wax nag soxna Njóoba Jóob mooy maamu nag Sëriñ Xaadim Géey jàngkat booba itam nag mu ngi ci kër nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moo sàkk woon itam nag ci Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mu jël nag soxna Mariamu Mbàkke mi jox ko nag maamam soxna Aminta Mbàkke ci ndaam Daaru Xalimul Xabiir ngir nag man ko faa ba bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag tolloon ndaam lañ fab nag soxna Mariamu Mbàkke mi ba ko nag ci loxoy maamam des nag ndaam daaru xalimul xabir ci loxoy nag ñaari maamam soxna aminta mbàkke nag ak sëriñ ndaam abdourahman loo bu matee dal alxuraanul karim maamam nag sëriñ tubaa seexul xadim nag lañ ko mu dalal ko alxuraanul karima ginnaaw bi nag lañ ko jébbalaat nag sëriñ ndaam abdourahman loo ci loxoy sëriñ ndaam abdourahman loo nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko moog nag bàjjanam soxna maymunatu mbàkke nag kubra ba mu mokkalee alxuraanul karim nag ba sëriñ ndaam abdourahman loo nag fob leen nag yit leen sëriñ tubaa seexul xadim nag ci njaareem sëriñ tubaa seexul xadim nag daa fob nag sëtoom bi doomam di soxna Mariama Mbàkke jébbal ko nag soxna Fat Jaxate di waajuru Sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke mu nekk fa ginnaaw bi nag la ko jébbal itam nag doomam soxna Faati Ja Mbàkke soxna Fat Ja magam nag moo ko yar ba mata dem kër ñu jébbal ko nag Sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mook Sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag ñaari bant nag lañ am muy soxna Njóoba Mbàkke ak soxna Aminta Mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy Sëriñ Moodu Awa Balla Njaay moom Sëriñ Daaru Asan Njaay mook Sëriñ Fàllu Njaay nag bu Sëriñ Daaru Assane Ndiaye nag benn bant la ñam muy kuñ doon wooye nag sëriñ Cheikh Touba Ndiaye ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Fallou Ndiaye moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye lañ ko jébbalaat nag beneen doomu sëriñ Daaru Assane Ndiaye ba di sëriñ Mbay Fallou Ndiaye moom sëriñ Mbay Fallou Ndiaye itam nag benn bant la ñam muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mariam ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mbay Fallou Ndiaye lañ ko jébbal nag bàyyi sëriñ Sarr moom sëriñ Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka waaye moog bàyyi sëriñ Sarr nag amuñu nag ak njabootam ginnaaw bàyyi sëriñ Sarr nag lañ fab nag doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke bi nag di soxna Mariamu Mbacke sëriñ mortaala faal moo sëriñ mortaala faal nag benn bant lañ am muy soxna daba faal ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ mortaala faal lañ ko jébbal nag doomu sëriñ maalik baasin si ba di sëriñ alin si waaye mook sëriñ alin si nag amuñu nag ak njaboota kër yii nag la soxna mariyamu mbàkke jaar njaboot yi ñu leen tuddal nag la fa am ngir xamale leen nag njaboot yii mu am nag ci kër yii mu dem nag ñoom ñooy ñan doomam jii mu am ak sëriñ moodu awa Anta Sali Mbàkke nag lañ ko jébbal soxna Njóoba nag moom sëriñ Abdul Wudóot Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ Cheikh Ummi Mbàkke soxna Baali Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke mu mag ma sëriñ Fàllu Mbàkke mii fi nekk ko jébbal nag sëriñ Moodu Mustafa Mbàkke Faliilu moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke benn bant nag lañ am muy sëriñ Basiiru Mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Basiiru Mbàkke ñaaxeen ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Moodu Mustafa Mbàkke Faliilu moom soxna a Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Mbacke mu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke soxna Aminta nag mook sëriñ maam Thierno na nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke soxna Maymunatu Mbacke sëriñ Muhidin Mbacke sëriñ Moodu Abdoulaye Mbacke ak sëriñ Xaadim Mbacke doomam ji nag mu am ak sëriñ Fallou Ndiaye nag moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye ñu gënoon koo xam nag ci sëriñ Cheikh Touba Ndiaye guddul nag aw fan càak tut tànkam nag la génnee àdduna doom ji ak Mbay Fallou Ndiaye di sëriñ Cheikh Mariamu Ndiaye ak njabootam nag mooy sëriñ Mbacke Mariamu ak soxna Yëmmu Ndiaye ak seeni rakk doomam ji mu am ak sëriñ Mortala Fall nag moom Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina nag di soxna Daba Fall ba mu matee dem kër lañ ko jébbal nag sëriñ Moustapha Mbacke Saliou moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke soxna Daba nag mook sëriñ Moustapha Mbacke Saliou nag am nañ ak njaboota mu nañ caaraañe soxna maam Boussa Mbacke soxna maam Faati Mbacke soxna Mariam Mbacke ak soxna Assu Gaawaan Mbacke soxna Daba nag buñ jógee nag ci loxoy sëriñ Moustapha Mbacke Saliou lañ ko jébbal nag sëriñ Cheikh Bombaali Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina mook sëriñ Cheikh Bombaali nag am nañ benn bant muy sëriñ Abdou Lahad Mbacke njaboot gi ñu leen tuddal nag ñooy lenn itam nag ci sëtën yi ñuy des nag ci kër gi mu amoon nag ci daarul xuddoos di yar nag di jàng nag ak itam nag di jàngale nekkoon itam nag yarkat nekkoon itam nag jàngalekat nekkoon itam nag ku waajuróom nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag fonkoon ku njabootuk sëriñ Touba Cheikhul Khadim gi nag fonkoon ku ëttum maamam nag sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo nag fonkoon mu nekkoon nag sëtum Mbacke nag ak Ndaam bokkoon itam nag ci sëti sëriñ Touba itam nag yi mag teel a am itam nag ab ràññeeku maamam sëriñ Ndaam nag soxna faati ja nag yar ko cheikh mamadou moustapha mbàkke itam nag fonkoon ko mu yarit nag ñu takkoo takkoo takku ñu takkoo takkoo takku itam nag tudde ko doom ci ñu ko tudde doom nag ñu mën cee ràññe nag maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di maamam tudde na ko doom sëriñ moustapha mbàkke saaliwu moom sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke tudde na ko doom sëriñ omar mbàkke gelongal moom sëriñ ibrahima mbàkke kajoor tudde na ko doom sëriñ cheikh di rakkam tudde na ko doom sëriñ mbàkke madina di rakkam Moustapha Mbacke Bassirou moom Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke tuddee na ko doom Serigne Mor Talla Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina tuddee na ko doom Serigne Abdoul Xarim Mbacke di doomu ndayam tuddee na ko doom Serigne Mbaye Jaxate bokkoon itam nag ci jàmbaar yi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim tuddee na ko ñaari yoon doom Serigne Mbaye Longor bu Daaru Xuddoos di Serigne Mbaye Longor mu mag ma tuddee na ko doom Serigne Fallou Ndiaye Xewar tuddee na ko doom Serigne Abdoul Wudoot Mbacke moom Serigne Modou Farmata Mbacke moom Serigne Afia Mbacke tuddee na ko doom Serigne Ibrahima Mbacke Njurul moom Serigne Mbacke Cheikh Gaynde Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Madina tudde na ko doom sëriñ Moustapha Mbàkke Saam moom soxna Xadi Fatma tudde na ko doom sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Madina tudde na ko doom sëriñ Balla Bousso tudde na ko doom sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke bu Mbàkke Kajoor tudde na ko doom soxna Mariamu Loo nag bu Sarsaara moom lañ ko tudde sëriñ Mbay Falloo Njaay tudde na ko doom sëriñ Cheikh Loo Jàmm Gën tudde na ko doom waajuru sëriñ Mbuub bu CCBM moom lañ ko tudde muy soxna Mariamu Jeng sëriñ Madiba Silla tudde na ko doom soxna Yëmmu Jonn itam nag moom moom lañ ko tuddee niñ joxoon sëriñ Cheikh Gaynde bu sëriñ Mbàkke Madina ak ñeneen ak na ñu ciy mu nekkoon nag ku mënoon a yar ku xamoon itam nag àdduna ku yaatu woon itam nag xol ku bëggoon itam nag waajuram Cheikh Modou Mbàkke fonk itam nag mbooleem rakkam yi rakkam yi nag fonkoon ko itam nag joxoon ko cër ba bari na itam nag ci rakkam yi ñoo xam ne ñi itam nag mat na leen waajur teewul itam nag mbooleem rakkam yépp itam nag ñoo ko joxoon cër ñu ci takkoo takko itam nag ci rakkam yi tudde nañ ko doom joxoon ko seeni doom itam na ngir mu yar leen mu nekkoon nag ku fonkoon alxuraanul karim ku nangu woon a liggéey ba ñum yar ñëpp itam nag ci nangoo liggéey itam nag la leen xirtal bëgg leen itam nag te itam nag di leen sàmm moom soxna Mariamu Mbàkke nag ñu takkoo takkoo takku nag yar na leen nag ci biir këram ba xëy leen joxe nag ñu dem kër ñu mën caa ràññee nag soxna bintu Mbàkke bintu sëriñ Mbàkke Madina soxna Ami Xayra Mbàkke bintu sëriñ Mbàkke Madina ba xay tuddee na ko doom sëriñ Njaay maryamu mbàkke doom sëriñ kan jàmm gën tudde na soxna maryamu doom maryamu yii ñu leen tuddal itam nag soxna si lañ leen tudde itam nag soxna si itam nag moo leen yar soxna ummi mbàkke moom sëriñ abdu xari mbàkke soxna ummi silla soxna say jeng soxna may sàmbu soxna say saar soxna say faal soxna yëmmu tin soxna yëmmu faal géwël soxna yëmmu faal géer soxna ngaya gay mooy waajuru sëriñ mbàkke abdourahman conférencier ak rakkam nag soxna ami gay soxna si itam nag moo ko yar soxna ami gay moom sax nag bi muy dem ndakaaru moom la àndaloon nag dem ndakaaru ba bi muy génn àdduna nag ci ndakaaru soxna ami gay moomu nag moo nekk ak moom doomu ndayam la soxna ci la mbàkke itam nag fi la yaroo sëtub sëriñ ndaam abdourahmaan loobi nag ku ay doomi baayam nag fonkoon la ku ay rakkam itam nag yu jigéen itam nag fonkoon la ba tax na nag saa su ne nag daan nañ ko nemmeeku itam nag di ko seet si di ko xoole nag seen waajur woo cheikh mamadou moustapha mbàkke yoonu murit gépp itam nag ñoo ko maase woon fonku ndax bokkoon na nag ci taaw yi bokkoon na itam nag ci doomi cheikh mamadou moustapha yi nga xam ne ñuy nag cheikh mamadou moustapha itam nag daana waxtaan ak ñoom nag saa su ne itam nag daana nekk itam nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir fonk itam nag gu mu fonk waajuróom nag cheikh mamadul moustapha mbàkke mu nekkoon nag ku njabootu sëriñ tubaa seexul xaddim gi nag fonkoon mbooleem waajuróom ko bëggoon li ko dale nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mouhamadul faadal mbàkke cheikh mouhamadul amin baara mbàkke ba ci njabootuk sëriñ tubaa seexul xaddim gi nga xam ne ni daal soxna mariyamu itam nag moo leen mag ñoom ñëpp itam nag ñoo maase woon itam nag am cofeel ci seen doom ji njaboot gu seexul xaddim gu jigéen gi ñoom nag ni lañ bëggee woon itam nag seen doom ji rawatina nag soxna Maymunatu Mbàkke nag Kubra moom nag mook soxna si nag ay seex lañ ñoom ñaar nag ñoo bokk nag at nag muñ feeñ a jamono ca yéen jolof ñoom ñaar itam nag la seexul xaddiim wàcceendoo nag ci benn bis ñoom ñaar itam nag la sëriñ ndaam abdourahmaan loo jàngalandoo alxuraanul karim ñoom ñaar itam nag seen ñaari kaamil yi lañ yitandoo nag sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ci njaareem tax na nag kóllëre gu yaatoo yaatoo nag lañ amoon diggante soxna Mariyaamu nag ak soxna Maymunatu Mbàkke Kubra ko nag fépp foo xam ne daal mas nañ faa nekk ñoom ñaar nag xam-xam boobu ñu amoon daanañ def nag ay way soo delloo nag ci way yi nga xam ne daal doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi nag ko xamal ne daal nii nga nekke nag noonu rek nag la sëriñ bi bëggee sëriñ bi itam nag ñi ngi koy ñaan itam nag mu gën laa fay ci barkeb Mariyaama moomu nga xam ne daal moom nga tudd te li nga nekkee itam nag bu ko bàyyi noonu rek la ko sëriñ bi bëggee way ndénkaane daal ak cofeel gu amoon daal ci doomam jii nag la ko doon wax nag ñu teelu nag way yi nga xam ne daal soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag moo ko def nag ci doomam ji di soxna Mariamu Mbàkke ma jóg ñaanal la yow Mariamu Mbàkke ci barkeb seex bu tedd ba ndax mu fal la rafet na njortu na ci sa mbir te bég na ci yow tey ji ma dénk la def ko ngal la yëgal ni sëriñ bi lee ko gënal ci mbooleem ñooñam na nga xam ne bég na ci yàlla na fay la dagaan naa lépp luy sëb cër ci baatin sëriñ bi da koy defar te fulaat ko yor la mareema meññ sang bu mag ba is Isa Marema e Soxna Jaara samaam wa Balla nga tudd yowit Marema Marema jàppal siyaari Marema yi di samaam ci yàlla ne sam xel sax ci yàlla ak ngeen ci yonneen nga fab sab xol ni Bamba fabal ma may la te kii di sa baay bi doy na sant yàlla te yàlla na yàlla fab ay baax xaral la xaral lay baax guddal saw fan te may la xireg ngërëmal Sëriñ Tuuba teral la li yaari Marema yi am ci maqaama ci barke Bamba yàlla na nga am ca loola te yàlla notal la yàlla say noon far musal la ci binde ki bañ lu lay noon def mu moy la te it Mariyam mu mbàkkeeg lu ma di téem ne sëñ Tuubaa taxaw te defal ko loola ginnaaw way yooyu nga xam ne daal soxna Maymunatu Mbàkke nag bintu Sëriñ Tuubaa Seexul nag moo ko defoon nag ci doomam ji nag di soxna Mariyamu Mbàkke moom soxna Maymunatu Mbàkke nag defaat na yeneen way di ko xamal ne daal at yee weesu nag defoon naa am ndénkaane nag ci yow moo taxoon itam nag ren ji itam nag ma bëgg koo wala defaat baneen nag ci yow ñu teewluwaat nag li soxna Maymunatu Mbàkke nag Kubra bindaat nag ci doomam ji nag di soxna Mariyamu Mbàkke yow soxna Mariyamu dénkoon naa la at yëlewe ab dénk noo ngi dagaan te yeesalaat kooti yow soxna Mariyamu dénkoon naa la at yëlewee ab dénkunoo ngi dangaan te yeesalaat kooti ñaanaloon naa la ñaan goo xam ne jóg nga jóg ngir yàlla ak yeesalaat baatab sëriñ baati yaa bàyyi ko fa sa kër ñëw gis ma jox ma sa xol teral ma moo tax ma def biib dénk soññooti wayu mujj yi nag indi luñ leen nag léppi na xasida gi ak cofeel daal gu yaatoo yaat daal la ñaari jëmm yi nag amoon saa su ne daal soxna Mariyamu Mbàkke dana dem nag di seet seeti nag bàjjanam saa bu fay dem itam na xol bu yaatu nag akuk bëgg akuk ubbeeku Maymunatu Mbàkke Kubra na xamoon na ko ci doomu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bii saa bu ko masaa gis nag dana def nag ci moom nag ay way cofeel gi ak yéene gi bëgg gi daal nga am ci man xam naa ko maa ngi ñaan nag sëriñ bi nag fay la noonu mu ko mele woon nag ak bàjjanam nag soxna Maymunatu Mbàkke noonu itam nag ni la ko mele woon itam nag ak mbooleem nag ku Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag meññ ñoom ñëpp nag ay rakkam lañ ñenn ñi itam nag lim leen mage waajur nag mage na ko nag doomam mbooleem nag njabootu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke gépp itam ñoo ko joxoon cër nag di ko xoolee itam nag Cheikh Modou Modou Moustapha Mbacke fépp fu mu jaar itam nag ndonal waajuróom Cheikh Modou Moustapha Mbacke ak lu jëmale nag yoonu maam wi kanam nag la doon sàmm ci loolu daal la sax nag ba nim génnee àdduna ci dëkk boobu nag di Ndakaaru ñu jëlee ko fa nag indi ko Touba ku daa tukki la itam biir réew mi ba ci Ndakaaru googu nag mu génnee àdduna mu ñu génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk bii nag di Ndakaaru ci kër rakkam nag Serigne Mbacke Madina ci mu dëppoog nag àllarba fukki fan ak juróom-ñett nag ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum quatre-vingt-quinze nag ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom ñett nag ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum mille trois cent quatre-vingt-quinze nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 30 avril 1975 mercredi 30 avril 1975 ñu jële ko nag ndakaaru ci xilaafa nag rakkam nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak nag ci xilaafa sëriñ touba cheikh abdoulahat mbàkke ñu jële ko ndakaaru nag indi ko touba jébbal ko borom nag ci boo dugg nag ci armeer yi ci xay gi sëriñ touba cheikh abdou xaadir mbàkke nag moo ko jullee doomu soxna Aminata Lo di tranda soxna Mariama Kunta ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum ba ci atum soxna Njóoba Mbàkke nag mi nekkoon ab taawam moo toogoon nag ab toogaayam ñaareelu xalifa soxna Mariama Mbàkke mooy soxna Aminata Mbàkke moo fi toog nag laan ba ci atum 2009 ñetteelu xalifa nag soxna Mariama Mbàkke mooy soxna Daba Faal moo fi nekk nag ci atum 2009 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wëral ay cëram te yàggal ko mbooleem nag ñu mu séqal nag soxna Mariamu Mbàkke bant bu góor nag bi mu fi bàyyi woon di sëriñ Cheikh Ndiaye Mariamu moom lañ doon xoole soxna si nag ci góor ci li ko dale nag ci atum 1975 ba ci atum 2001 doomu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bi nag ak na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal ci kër gii mu am nag ci Touba Daarul Xuddoosa muy bis bi mu fi bàyyi koo nag di fukki fan ak juróom-ñett nag ci weer wi nag di rakk ci gàmm màggal gi nag foofu nag lañ koy amalee doomam ji magoon nag ci ak njabootam di soxna Njóoba Mbàkke moom séq ak sëriñ Mbàkke nag moo ko sosoon ginnaaw soxna Njóoba nag ci ndigalul soxna Aminta nag la doon wéy ginnaaw soxna Aminta nag ñu ngi koy amale nag ci ndigalul doomam ji fi des nag di soxna Daba Mbàkke ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam bis bii nga xam ne nii tim nag mbooleem njabootug Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag gu jigéen gi te moom nag muy seen mag ñi koy amal nag di ci fàttaliku nag seen waajur wa di Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moom itam nag bis boobu itam nag noonu itam nag ni la ko doon dundalee ci ndigalul nag ay rakkam di sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma nag ak sëriñ Mbàkke Madina màggal na nekk muy ñetti fan nag ci weeru baraxlu di bis bii nga xam ne daal ci lañ mujjee gis nag seen waajuroo nag ci atum 1945 bis boobu itam nag bis la nag ba mu fonkoon ku xamoon nag waajuram nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke la ku daa taxawu itam nag waajuram itam nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke itam nag la woon ci mujjug moo Modou Moustapha Mbacke amul génn guddi nag gu soxna Mariamu Mbacke gisul nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo nekkoon nag ab taawam ci ñetti fan nag ci weeru baraxlu googu nag mu ko mujjee gis ni ko mbooleem na rakkam yi nag daa dundale moom itam nag ni la ko dundale ñuy ñaan ca sëtub sëriñ ndaam abdourahmaan loo ba ak sëriñ tuubaa seexul xaddiim ba di soxna mariam mu mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay mbàkke ak ndaam nag amin